monsieur Abdallah Tall mooy jaraafu dëkk bi ban lecture nga def ci par par rapport ak gestion ci ni ma ko déggee muy wax ku am ambition la non Mboro gisaguñ fi dara nag moom franchement ci wàllu ndox mi lépp muy équipement xaalis ci amul un franc bu mu ci dugalagum man à tout moment mën nañu xaarandi Hadj Malick samp ndëndëm pour euh, mairie bu Mboro non foofu rek tuuti na déggoo li ma la wax maanaam mairie de Mboro rek tuuti na ci Asma liggéey li